thank you jërë ngeen jëf dale nag jàmm ci xew-xew bi réew mi tey talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril ñu tàmbalee ko ak lu yéeme loo xamante ni mooy xew ci biir réew mi muy douane bi nga xamante dafa teg loxo li nga xamante ni moom mooy drogue waaye tamit ay garab yu baaxul yoo xamante ni ñoom ñoo doon circuler ci biir réew mi waaye tamit lu takku ci ay ginaar yoo xamante ni dañoo varié te brigade bi nga xamante ni nekk bu douane nekk ca pont Serigne Bassirou ñoom ñoo ko daa teg loxo ci dimanche bi loolu nag mi ngi amoon lu bëri ci ay ginaar yoo xamante ni daanaka dañoo nëpp waaye tamit ay cuisse yoo xamante ni daan nañ ko teg ko te ab ndaw soo xamante ni moom moo jigoon ca frontière bu Gambie moom moo yoroon mbir moomu lu toll ci téeméeri kilo ci li nga xamante ni mooy ay ginaar yu baaxul buñ ko dugal ci biir dëkk bi ci ab camion boo xamante ni ci la làqoon mbir moomu moom nag nañ ko tege loxo fa nga xamante ni moom mooy te yoonu Latmingué te ñii di douane ñoo ko def ñu wax ci meneen mbir muy ay nit yoo xamante ni dañoo wér di ñoom ñoo daal di nga xamante ni moom mooy kawlak ci ay mbir yoo xamante ni dara leeru ci ci loolu nag ki nga xamante ni moom moo jiite association bi sàmm ñi nga xamante ni dañoo wér di di dina amal li nga xamante ni moom mooy ab marche tey jii si talaata bi fa nga xamante ni mooy Kaolack ak fi nga xamante ni mooy Dakar waaye tamit fësal ne dinañ daal di porter plainte ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr ci mbir moomu ba sax ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci association boobu ñi ngi sàkku ci njiiti réew mi mu daal di dàq kooku nga xamante ni moom moo yor wàll santé bi ak action sociale ndax mbir mi dafa nekk loo xamante dafa jéggi dayoo te saa su nekk mi ngi wéy di am ci biir réew mi génn àdduna ki nga xamante moom moo daal génn àdduna ginnaaw ba mu amee juróom-benn at ci bopp njaboot gi ki nga xamante nag moom mooy nimzaat réew mi nag daal dina jébbal li nga xamante ne moom mooy njaalam ci li nga xamante ne moom mooy page Twitter bi nga xamante ni ci même bis bi la ko daal def beneen mbir bu xew fa nga xamante ni mooy Ziguinchor lu nduróo ak li nga xamante ni moo amoon ca Louga muy seen ndaw soo xamante ni daal fësal ne ay doom dañoo daal di faatu ci hôpital boobu ndax ñàkk taxaw boo xamante ni tegal nañ ko ko mu nekk ñett doom yoo xamante ni ñoom ñëpp ñoo gaañu ci benn bis bi ndax ba mu nekkee ci hôpital boobu nag ñi nga xamante ni ñooy sage-femme yi ko waroon taxawu faalewuñ ko dañoo nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy seen téléphone ak di waxtaan mu nekk fa lu toll ci juróom-ñeenti waxtu suba ba juróom-ñaari waxtu si ngoon te sax mi fësal ne jamono ji nga xamante ni loolu wasin ngir ñu jëlee ko fa mu dëkk yóbbu ko ci hôpital ba nag amul ambulance boo xamante ni moo ko waroon yóbbu dafa duggoon ci ab oto mburu boo xamante ni moo ko waroon yóbbu ci hôpital ba ngir mën a wasin lii ma gënoon a fës ci xew-xew bi réew mi tey ji talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci weer avril ñu ni jox di daje suba ci yeneen xibaar fii ci réew mi officiel la